mu ngoog euh, mbokk internetu Thiès Info nee naa leen mbégte la ñu am saa su nekk di leen dalal seen première site d' actualité à site bu baax bi nga xam ni moo leen di jox information à chaud tey nag émission bu spéciale laa leen indil bu ngeen gisee li ci taabal bi rek seen xel am fu mu war a dem duma ci wéet nag benn yoon dama ci ànd ak kii di maman Aji Mbaye docteuru jeeg ji mu ñëw rek ñu fas yéene sikk ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu jëmale ci wàllu baax baax yi nga xam ni ci néegu sëy lañ ko war a amalee nan la jigéen war a toppatoo borom këram jigéen jonge feem xam naa balaa ñuy xuus ci biir question yi rek dañ koy jox mu nuyoo ak yéen maman Aji Mbaye nuyu nañ la. Euh, maa ngi lay fay maa fii chéri euh, ange billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, di leen nuyu di leen sargal di nuyu boroom kër gi di ko jox yéeg waayam ak wàcc waayam di nuyu waa Sénégal àdduna bi ñiw seetaan yépp di leen wax ni asalaamaaleykum rahmatullah waaleykum salaam mama Aji mbay xam naa duñu guddal rek dañuy dem directement ci biir question yi yi ci table yi moom lan la mama ah li ci taabal ji daal mi ngi nii rek euh, man daal dama ko tuddee sax xorom ci biir cin waaw ndax sa cin moom defe naa ni looy togg lu mu neex neex neex foog mu am xorom sinon rek mooy loolu ci biir cin daa ko tuddee daal waaw. suñu première question yi rek dañ lay laaj lan mooy jonge mooma parce que dañuy dégg parfois ñu naan jigéen dafa war a jonge dafa war a lan mooy jonge. bon man si sama xam-xam bu gàtt ni ma gisee jonge ñu bëri dañu foog ne sax jonge astuce yi la mais du ci dara def lay wéttali rek mooy comme mooy xorom si ma wax rek mais jonge mi ngi tàmbalee ci kàddu gu neex nga teg ci nga nooy nepp parce que jigéen dafa war a nooy soo bëggee jonge te te diis doo dem soo bëggee jonge te diis doo dem da ngay oyof tool ni ma xane nooy nepp tubaab bi di ko wax nga dusil euh, dégg ndigal bàyyi tere bëgg lu baax bëgg lu neex mën ko di ko def man daal foofu laa teg jonge daal. kon di ci des yi yëpp mooy xorom si rek. complément la complément la <laughs> d'accord léegi bu ñu nee xajam nag parce que dañ naan jigéen dafa war a xajam tamit xajam bi ban côté la. waa xajam bi moom mën na àndak ak lii parce que comme ni ko woykat yi di waxee rek jinax day bari pax xajam jigéen dafa war a xajam. soo déggee xajam nag xale yi léegi boo nee xajam mën nañu yaakaar ni sax suuf la comme nga jël cere ji këpp ci suuf affaire yooyu noonu xajamal ko non loolu du xajam xajam mooy jigéen bi nga xamante ni dafay féroce dafay day sob day sob mel ni ma madame Faye lépp loo xamante ni xalaat nga ni lii su ma ko jëlee war na mën a bégal sama borom kër pourquoi pas nga uti ko ak fu mu mën di nekk nag daal le monde wëri ko li nga xam day bégal sa borom kër bu ko amee ci yow day bëgg wëri ko loolu bokk na ci xajam euh, xajam bokk na ci nga bëri faset bañ a nekk benn façon jigéen rek bon bu tayee nekkal mère bu subaa nekkal jeune fille ginnaaw suba nekkal disket bu ndaw tey nga dugg ci domaine nu femme de ni ñu koy waxee femme de nuit dugg ci domaine boobu lépp ci xajam la bokk parce que taxul nga nekk ko mais da koy nekk pour sa jëkkër ndax meeru taasukat yi naan jigéen cagaal ba mu neex la yem ci sa jëkkër kon loolu yëpp ci xeetu xajam la bokk parce que góor buy takk jigéen nekku defu ko pour meuble jigéen aussi bu nekkee ak boroom këram nekkul nii rek da ngay ñëw rek nekk euh, pain nekk mburóor nii rek tege da nga war a xajam mburu mi lu ne def ko ci daf lay wéttali sa biir néeg daal au fait waaw loolu yëpp bokk na ci xeetu xajam daal comme classe d'accord dégg naa léegi ci say biir wax nga ne tey nga nekk jeune fii bu subaa nga def yëfi mère et tout parfois damay dégg surtout jeune marié yi dañ naan ma nuisette la préférée nuisette moo gën a tubaabe sër dafa yàgg et tout ñooñu loo leen di wax. ñooñu moom dama leen di dama dama naan yedd yërëma ko gën dama leen a yërëm parce que man tubaab nga def nuisette tubaabe ba nga nee def nuisette tubaabe nga ko yàq parce que doo tubaab tubaab bi bàyyi koog li mu moom yow li la say maam bàyyil say waajur bàyyil la ko dem ci. li la say maam bàyyil ak say waajur mooy lii suñu maam yi dañ daan wax becco su daga su araamoon duñ ko suñu maam yi duñ ko utiliser kon lii mooy becco lii ci ci xeetu xajam la bokk ci biir néeg lii mi ngi nii def sa becco bu gàtt ah nekk du nekk femme sénégalaise typiquement sénégalaise jël say xeetu fer ne ci tegg fer gi boo tubaabee doo ci bokk parce que bu nee da ngaa tubaabe rek yokkoon bokkoo ci bagage yi mais ñi tubaabe lay laay waxal ñi nga xam ne non ñoo ñu laay waxal <laughs> cekkete <laughs> parce que gis nga xeetu fer bii non seulement day xajamal sa biir néeg mais gàllaaj la kii gàllaaj la njaxas bi gàllaaj la per bi am euh, per bi ci boppam ci mit gàllaaj la parce que tey ji boo dee jigéen nga jël fer gi takk sa ndigg yàlla may la nga sëy ba am doom bu góor sa doom bu góor boobu bu demee ba dugg néegu góor fer gi ngay jël moom nga koy takkal kon galaaj la. kon cosaan la daal. nañ dellu ci cosaan damay bëgg a woo xale yi ñu dellu ci cosaan. sax laay pëtëxlu rek laaj la lan mooy différence su sëyu démb ak sëyu tey ñu mag ñi daan sëyi ak ñi gune yi di sëyi. waaw sëyu démb ak sëyu tey lii différence bi man li ma ci gis dafa bari ndax ñi mag ñi daan sëyee mag ñi dañoo parce que mag ñi nee nañu sa jëkkër sa borom kër. su amee ay picc ci kanamam ci lexam maanaam walla ci taab ci lexam pour nga dab àqam sa làmmiñ nga mar ko taab boobu ba mu set neexul ci dégg-dégg nga mar ko ba mu set sax taxul nga dab sa àqu borom kër xaw ma dégg nga ma wala déet. loolu yéeme na de ak ni xale yi di sëyee tey ji waaw parce que xale yi dañuy jàpp seen borom kër yi rek comme ni ñu ngoroog ñoom. mais sëy ak ngoro du benn ki nga ngoro dangeen ngeen a ngoro ngoro leen bu leen neexee lu leen neex def waxante leen mais bu alxayri xasee jib mu nekk sa borom kër mooy sa kilifa jëkkër du moroom sang la jëkkër da nga ko war di tagg di ko tarbiyu di ko toppatoo bu mu xiif bu mu mar bu mu rafle da ngay xott maam yi dañuy xotti jox sa jëkkër mu sol xale yi léegi koo ni xottilal sa jëkkër mu ne waaye am na lu mu ma moo ma war a xottil ma di ko xottil am na lu mu solo loolu la ñuy wax kon différence a ngi foofu déjà benn beneen différence bi mooy bu njëkk yow mii di sëy di jigéen boo waree dem fenn te woo sa borom kër amoo fitu génn dem tant que tàgguwoo ba am ndigalam ngay soog a génn même bu la sa yaay wooloo wala sa pap tant que amoo ndigalam waroo génn dem wuy ji ko xale léegi danga naan waaye sama yaay ma ko gën a wala sama papa ma a kii naa toog fi sama yaay woo ma ma bañ koo dem wuy ji wala naa toog sama ma bañ ko dem wuy ji damay dem wuy ji lu ma ci góobe gar ko moo tax ñu ngi koy gar ñu ngi koy gar bu baax ak ci ñi ma ko sañ a wax mais nag am na ci xale yoo xamante ni fa mag ñi tegoon seeni tànk fa teg seen tànk xale bu mel ni madame fay macha allah euh, moom de fa mag ñi tegoon tànkam fa la teg tànkam dañ naan ko da ngaa dooc parce que sëyu mag ngay sëy kooku day jël siwo xaw ma paan ak satala def ndox nugal ba mu baax def ci yim ci war a def yépp maase ay tànki jëkkëram. pédicure ba mu set. di raxas ba mu baax mag ñi dañ ko daan def xale dañ koo bàyyi nga jël ndox sa jëkkër ñaan la ndox nga tànk ñëw sukk toog ci wetam mu naan ba pare nga jóg barke bi nekk ci loolu kenn da koo xam nu mu tool xale léegi taay nañ ko soo nee damaa mar ñu def. naan la dañ naan la soo bàyyi noonu tànkal sa bopp. sa bopp <laughs> jeex na tàkk. léegi beneen question bi rek mooy maanaam ndax ndax jonge war na war na màgget ndax war nga dem ba yenn âge yi nga ni ax ah, man daal léegi damay bàyyi daal affaire yëfi xale la et tout parce que da ngay gis mag ñu bëri dañ koy def dañuy dem ba yenn âge yi dootu ñu toppatoo seen jëkkër dootu ñu amati seen jot surtout mère yi nga xam ne ñu ngi ci njaay mu metti meeg ñoom seen <laughs> loolu moom dëgg la moo tax paa dem ci xale yi <laughs> looloo tax paa yëpp ñu ngi wëri xale yi mm-hmm. parce que jeeg ba nga nekkal ba ngeen di xale ngeen dem ba jëm mag ay doomam màgg mayal sa papa ndox mu naan mm-hmm. bu sa papa ñëwee tàngalala sa papa añ bi yow yàkka reer bi indi sa papa non non non non non la yow la nekk sa boroom kër kon service su service am yow yaa ko war a daw mais pas doomam ku góor ki moo tax mbëggeel du màgget xol du màgget jonge du màgget te sëy itam du màgget maire yi ñoo fi dàq fuddanu maire yi dañuy fuddanu ba mu dër def seen kolu fuddanu desin yu baax teg sa sëru malikaan yi jiital ko bu tàkkusaan jotee nga def sa tagal gu baax sol sa robe bu baax wala sa marinière wala grand boubou yaa xam noo ko dundee def sa tagal gu ne muut am na ñoo xamante ni bu dee dañuy kol nga def sa kol ba mu yiw pour teeru sa borom kër mais li ma contre mooy yor sa yére yu baax ci sa biir armoire balaa ko sa jëkkër a teg ba da ngay am xew di dem. yaay foo jëm. bokkul ci jonge waa Euh, baax na ci xale baax na ci mag. Uh-huh. gaa la ñu ci marché bi boo demee ci boutique parce que pour pour bañ a def publicité kenn. Uh-huh. boo demee ci buti ki di ko fekk. Uh-huh. soo ma contacté man di man docteur Dieg ji itam dinaa la ko andil. di ko initié gaa la da koy sol comme ni ngay solee gaa. parce ne gaa yi docteur yi di utiliser la wala nangam. mais kenn ku nekk war ngaa mën a doon sa docteur Dieg. ngay sol sa gaa bi mu ngi nii taxaw. di jël sa huile massage. bu la neexee. Mm-hmm. Mm-hmm. nga jël daal bu mu liggéey ba wàcc sonn. liggéey ba wàcc sonn am na ay huile de huile massage karité mi ngi fi nga def sa karité bu baax ak sa huile de sa huile yi daal muy massage bàyyi sa borom kër ba mu tëdd nga jox ko mu lekk ba suur nga maase ko yaramam yépp daf ci am solo gant bi soo gisee ñu génnee ko itam parce que ñun jigéen ñi da ngay nekk ci produit détergent yi omo yeeg eau de yi ba sa loxo yi day daal di wow wala mu xaw a am ay kii yooyu noonu. te góor dafa sensible soo bëggee mu muy muy sentir sa loxo gant bi dafa ñëw remplacer lépp nooy na te baax na ci yaram daal baax na fépp. gànnaayu ay astuce am ay bagage yu baax a baax a baax waaw jigéen dafa war a pare gis nga lii ci xeetu baax baax yi la ci xeetu astuce yi la bokk mu ngi nii nga def sa jupe chaîne bu baax takk fekk nga mel na nga war a mel nag boole kook nag wax ju neex neew ma ngeen takk seeni fer woddoo seeni sër boole kook euh, ñagas tontu fas kanam nga ba mu dëgër fas ba mu dëgër boo ko defee kii koo ko takkal ko gis bu la neexee bu dee dafa tàng ba xëy ne tàngaay bi dalay xaw a sonal nga jël sa poobar bu sew bii rek sànni ci sa ndigg kii moom dafa du du déranger kenn sonalul kenn xale yi dañ ciy préféré sax nag chaîne ndigg yi baax na ci xale baax na ci mag kii plaqué original la nga jël sa chaîne sànni ci sa ndigg dafay rafet góor lu ko bégal dafa yomb bii nii xale yi dañ koy teg korok topp bi doo ko takk ci sa ndigg danga koy takk diggante ndigg li ak ween yi ci dënn bi avant ngay egg ci dënn bi euh, nu ñu koy waxee taille ot bi daal taille la daal. foofu nga koy takk rek bàyyi mu lang moog bi ñoo yem liggéey bu la neexee tamit nga def ko taay haute bu la neexee nga def safer mu wàcc waaw jël say sër rek xeetu sër bu nekk mi ngi fi. mu ne ko xeetu sër bu nekk mi ngi fi. ah yow tubaab bi da koo ragal bëgg naa nga yëkkati. li Balla Gaye waxoon Tafaati ñaa ngi may seen. yaa ngi may seen bii <laughs> saf na ma lool rouge danger moom dafa sama doom neen da ko bëgg eh. waaw rouge danger ngi nii lii dafa baax ci ci kër loolu day dundal ménage de góor lu mu mer mer mer lu mu sonn sonn sonn mu wàcc nga taggal ko ay maamam jox ko ndox mu sang ba féex jox ko mu lekk ba suur lu mu wax nga ne waaw mer ma yam ca biti ah boo ci boolee teg sa toq sër bii jël say fert ne ci tegg loo wax yaay borom. foofu sax laa bëggoon a ñëw ci mer boobu maanaam jigéen bu joteek boroom këram wala sax mu tooñ boroom këram borom këram mer nan la ko nan la ko waree a eh, eh, maanaam nan la war a def ba mer boobu giif ci ay bagaasam ci ay bagaasam ci ay astuce am mer day am parce que ñëpp am xol ku am xool da ngay mer waaye soo meroo ak sa borom kër donte moo la tooñ nangul jël tooñ bi nga féete woo ko man maa wax lii. donte moo la tooñ nangul jël tooñ bi yow nga féetewoo ko nee ko yaa ko tooñ xam nga góor goo def loolu wàcc na jox ko mu lekk ba suur naan ba màndi xeeñal sa kër ba lépp neex lépp set na lépp di set set nag mooy jitu lépp bu ngeen temee ba tëdd fekk ko fi mu tudd tëdd nga ñëw toog ci kanamam ne ko nijaay wala amoore wala sang bi wala yaa xam noo ko woowee neex na lu la neex woowee ko sa papa chéri lu nekk a ngi fi si lan la danga mer ah man de foogoon naa dooma mere kon yow mën nga maa mere nii man xam naa ni maa la tooñ action sànq bi yow defoo ci dara man mi maa tooñ. war a daw. ana mer mer day jeex wala nga bu dee góor gu gayndewu nag ba mel ne Omar Dembale nga xam ni moom déggul jat maa ngi koy nuyu de passage sama càmmiñ la bu ma lakkal moo tax ma koy euh, tuddee déggul jat boo ko bu la meree nga nekk dem stressé wu nangootoo solu defoo dara day yokk mer jigéen ji jëkkëram mere mu stressé wu di xalaat mer mi day yokk meru jëkkëram xam nga nooy def danga koy wan ni yëguma ni mere nga ma bisub keroog ngay gën a sañse demal pose say xef ba mu taxaw defal ma say wee ba mu taxaw solu lu rafet jëlal li nga xam ne moom la gën a bëgg ci say yëre sañse nga sañse ko ba mu rafet xaar ko mu wàcc nga taajal ko ko añ di ko fàttali nag démb ba mu lay soog a takk na nga meloon delloo si loolu wan ko ni man yëguma ni mere nga ma bu guddi jotee bu wàccul foofu lépp ba guddi jot jaaral fi ma la wax sànq boole ko sër bii def say laase yu baax xam nga sër bii nga def ko laase ba mu baax koo jonkan ci kanam laase laase nga laal de mère mbay Mbaye laase laa laase nga laal waaw <laughs> yow daal daa mel ne yaa ngi armé jéeg ji daal ba bañ euh, ba ñu am defet ndax damaa ragal defet bëgguma ànd ak jeeg bu amul caaj. taaskat dañ koy wax de. wala jeeg bu déggul ndigal. mbir mi lépp dégg ndigal la nag góor amul lu dul baat ci këram koo xañ baatam xañ nga ko am na ñuy bégal seen borom suñu borom kër yi boo booleeg nag di leen jox seen baat ndax góor baat la am ci këram boo ko maye may nga ko lépp mooy baas bi waaw. sànq dégg naa sa biir wax nga ne set. maanaam tey jii da ngay gis femmes yoo xam ne dañuy bëgg a joge mais dañuy tayal du ñu nangu foo leen fekk ñu ngi tëdd foo leen fekk ñu ngi jàmbat duñu duñu duñu set ak jonge boo tayalee di nga jonge set mooy base jonge parce que boo tayalee rek salte te salte moom yàlla nañu yàlla muccal ci jigéen bu salte jigéen bu salte man bëgg boo lekkee boo toggee bëgguma boo rootee bëgguma bëgguma sa dara daal man daal jigéen bu salte moom man aw maa moom benn affaire man daal set mooy baasu jonge boo bëggee sa jonge feeñ boole ci set hygiène dafa am solo ci jigéen waaye tayal nga salte nga réew nga sa jëkkër bu wàccee sonn nga ni ko maa la gën a sonn te maa la gën a sonn yaa ngi tas kër de man dañ ma koy réclamer maa la gën a sonn mu ngi tas kër yi de waaw sa jëkkër bu xëyee buy yeewu 5 heures du matin nga yeewu 5 heures du matin le temps que muy sangu julli solu profitoo nga sangu julli solu moo la gën a gaaw solo parce que góor la peñe rek lay def laal parfum dem di nga fa nekk di maquillage parce que xëy na ci la fa ngay liggéey say collègues dafa yàgg moom ñu waajtaay dafa yàgg jël sa temps ba doo ko tala sax jox kaasu café mu naan génn na dem na liggéey génn nga dem nga liggéey njëkkanteeg moom wàcc jot na mu jiitu la ci kër gi amaana wala nga jiitu ko ci kër gi xëy na di nga am na ci ñoo xam nag moom ñu mel ni ma dem Ndaw moom dinañ def benn effort euh, parce que ñoom foo leen foo leen bett ñi ngi joŋee moom ay madame Ndaw ak madame Fall. dañ koy dañ koy dañ koy nelawaale di ko yeewuwaale. dara du leen bett waaye boo melee ne faama kumba yuga nga xamante ni yow dara bëgg a la bu waa ji yegsee wàcc sonn bala moo si nga yëg nga ca kaw lal ba tëdd wala ca fauteuil ba te naan jànk bi jox ma tàngalal ma ma añ kii tàngaloo jànk pour añu boppam dina tàngalal jëkkëram doo ko def guddi jot sa jëkkër fu mu la teg loxo nga ne ko damaa sonn bilaay damaa sonn bañu damaa sonn damaa sonn jooju bu dëkkee ci noppam bi mu génne wuti ku sonnul. Mama ji mbay lañ doon dalal ci suñu plateau mu mel ni rek euh, sekkoon nañu ak moom waxtaan bu yaato yaatu jëmale ci wàllum jigéen feem ci biir kër nan la jigéen war a toppatoo jëkkëram balaa ñu koy ñuy tàggatoo ak yéen rek dañ koy jox mu daal di tàggatoo ak internetu Thiès Info. waaw maa ngi tàggatoo ak internet internetu Thiès Info tàggoo bu dul tàggoo di leen bëggee. waa di wax ne am nañu mbégte ci ci jataay bi suñu sañoon chaque fois ngeen invité ñu parce que kanam yu belli rek la fi fekk macha allah suñu caméraman yi bi ma ñëwee ba léegi damaa ree ba stress bu ma fi wàcc woon sax dafa jeex na damaa yendoo liggéey sonn sama bopp sax nekkul ci man mais ba ma duggee Thiès Info la lépp dem waaw macha allah macha allah di tàggatoog nit ñi suñu mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan di jaajëfal ñëpp. képp koo xamante yaa ngi saxoo di déglu di seetaan Thiès Info rek ñu ngi lay bëggee. ban conseil rek ngay jox jéeg ji. Ah, di jox jéeg ji aussi conseil bi nga xamante ne rek moom laay jox sama doom di ko jox samay xarit ak sama bopp parce que man sama wàllu bopp matuma bay joxe conseil mais dañuy jéem dañuy jéem rek. parce que kenn ku nekk ca la nga nekk bëgg nga sa morom ne ca mbaa lu ko gën ndax yow la nga nekk sax bëgg nga lu ko gën bu dee bu bëgg kon da ngay bëgg ku def ni yow mbaa ku def lu raw li ngay def li ma leen di conseil daal mooy nañ ci jiital hygiène set ci ruq yeeg ruqaat yi set ci lépp dindi tayal teg ko fee jël sawar rek def ko doomu ndey jigéen dafay sawar ci lépp nag bu euh, guddi tamit di leen xamal ni leen guddi bëccëg lañ koy waajal suba teel boo yeewoo di joxe ndékki ci ngay waajal sa guddi di toppatoo sa borom kër ci ndékki la di ko wax ju neex di ko charmer ba mu xëy nga woo ko téléphone papa chéri dama laa namm waaye yaa jóge yow heure bi ma fi jógee mag yow xanaa même pas quinze minutes nga naan ah sang bi namm naa la kañ ngay wàcc mbaa jëlee pause di nga ñëw xam nga yooyu day bokk ci li nga xamante ni day jox góor gi bu tey bu wàccee day daw teel a ñëw këram. maa du bàyyi liggéey ba daal di daw ñibbi. jar na ko <laughs> jar na ko buñ ko dàqee nga embauché ko. <laughs> foofu rek la ñuy tàggatoo ak yéen ñuy jaajëfal bu baax xam naa laataaloo rek nga joxe sa numéro waaw eh, jéeg ji bëgg a ñëw jënd ci yu baax baax yi nii rek. waaw numéro numéro téléphone bi 77 566 75 90 wala 78 502 35 79 man ma tudd Adji Mbaye dëkk fii HLM Thiali di coiffeuse nag Thiès gépp xam ma macha allah yàgg ci métier coiffure. depuis 94 laa dugg ci coiffure ubbi sama salon de coiffure bokk ci association des coiffeuses bu cees di nuyu suñu présidente bu ñaawul boobu Adama Kanté man ngi koy nuyu de passage bokk ci groupe les bu dames du CM Ousmane Ngom les anciens élèves de CM Ousmane Ngom may seen docteur nag lu ma def neex na leen lu ma def neex na leen euh, lu ma leen jaay lu ma leen jaayul duñ ko jënd feneen. docteur Jéegi Jéegi ku daal boo ma contacté ci ñaari numéro yooyu 77 566 75 90 78 502 35 ku ma ci woo rek di nga ma jot. d'accord mu ngook moom lañ doon daral xam naa ñuy leen di jox dig daje rek ci beneen plateau laataa loolu rek ñuy jaajëfal suñu cadreur yu ñaaw lii di Jabel Wade ak euh, si mbay ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen plateau jaa ngeen jëf.